o du ma ne sax weddi teguwul teguwul tuuma mais aussi man je suis arrivé un peu en retard disons que près de la fin la mais aussi ni ko rapporté aussi amul hmm. ne dafa dugg biir biir juge bi l'inculpation période boobu dañu jàpp ne so audience la et que ñun man ba may yegsi en cours de route lañ ma xamal ne ma il est sous mandat de dépôt taalu ko pareeguñu ah. ba ñu ba ñu pare ba pare ba moom ay incidence ci la ñu avocats yi rapporté la fa am boobu la porte était ouverte kon yéen duggoo leen def fa désordre la ko waxee la porte était ouverte bi fa nit ñi di dugg mais bon du ma ubbi bunt bi ba man de xaw ko parce que bari woon na nit man daal jékki-jékki naa gis naa un mouvement de mu ah. ñu dugg fa mais du ma dugg ci yenn détails xam lu tax du ma ci dugg parce que tey jii en tant que euh, porte-parole d'un syndicat d'un collectif ñun tooñ nañu on on a mal en jusqu'à notre chair profonde mm-hmm. mais man jëpp gëm naa ni bu dee da ngay faj sa mal mhm. waroo créer d'autres mots ñun on en ne conscience bu dee si suñu taxawaay ci ay actes yoo xam ne dañ ko posé euh, naxadina ku mu mënti doon y compris les magistrats mhm. ñi nga xam ne après tout ñoo bokk même kër. ba UMS e ba UMS e wax ci. ils sont dans leur rôle. daanaka menacé sax. mais ils sont dans leur rôle xaw man la teneur nag euh, voilà de leur message et de leur communiqué ça ñoom la appartenir. Mhm. ñun en ce qui nous concerne on prend acte. ñun aussi ba ñu jëlee suñu collègue am na benn taxawaay bu ci wax comme que ñoom dañu ci li ma lii seen communiqué dañ ne dañoo xotti worma seen collègue. ñu naxarlu sàkkamtuma ak ñun ñi nga xam ne suñu collègue dañoo xotti ces actes ne resteront pas mais loolu encore une fois man du sax di insister sur la sur la. ah da ngeen cee war a bàyyi xel c'est leur non non non absolument li tax ma ne la duñ ci bàyyi xel euh, man de en tout cas personnellement ñun en ce qui nous concerne li ñu intéressé. mooy que Ngagne Demba Touré soit libéré loolu ñu moo nekk suñu kanam loolu moom mooy focus. d'accord n'empêche nag ci vous me permettez rek ma daaneel. foofu n'empêche que aussi ñu ngi ñu ngi ñu bu dee suñu acte. parce que aussi bi loolu amee. man di reçu des message de soutien de magistrat j'ai reçu des ñu bari recevoir nañ des messages de soutien de des magistrats donc ñun ñoo bokk suñu famille judiciaire mhm. après coup forcément da ngay regretter parce que suba ñooñu noonu yenay toog di bokk couloir di bokk mhm. bureau di bokk liggéey donc bu dee de par nos actes heurté nañ la sensibilité de kenn wala kenn jàpp na ni tooñ nañ ko mhm. je profite de votre plateau pour di jégalu loolu moo ñu war parce que loolu signe d'humilité la mais aussi signe de grandeur mais tout temps nag restant ferme et qui déterminé pour obtenir la libération de Maître Ngagne Demba Touré léegi man man euh, bi nga fi ñëwee la dernière fois xawoon nañ évoqué euh, cas bii nii mhm. boobu moo ngi woon euh, en exil mhm. lii fi xew itam mhm. junjoon nañ leen ko mais jàppoon ngeen ne na duñ fa daal di egg tey egg nañ ci itam ñu gis taxawaay bi nga xamante ne am ngeen ko par solidarité d'accord mais est foofu tamit yéen amul amalgame boo xam ne ñoo ngi koy def parce que Ngagne Demba li nga xam ne moom lañ ko téye ça n'a rien à voir avec posture de de de de de de greffier maanaam ci leneen lañ ko daal di jàppee donc ci politique mën nañ wax ne ci ay ay yoo xam ne def na ko donc c'était pas le Ngagne Demba Touré greffier mais c'était le dem ba Touré politique parce que dañ ne greffier fonction la comme ni journaliste nekkee fonction ak yeneen i fonction donc pourquoi yéen ngeen bëgg jël combat bi euh, ngeen bëgg ko solidariser wu ci wàllum greffier alors que politiquement la mbir mi waroon demee man de duma détacher les deux choses du ma détacher une chose ah man pour benn Ngagne Demba Touré ba pare aussi y a une chose mais faire de la politique c'est pas un délire au Sénégal ñun on est soumis à un certain nombre de de de lois et règlements ci pays constitution bi dans son article huit moom moo ne ku Sénégal ku bëgg mën nga former syndicat nga exercer ko librement Sénégal def ko ci charte fondamentale am signer de traités dans ce sens notamment la convention 87 de l'OIT de la même façon aussi Sénégal moom moo ratifié aussi des conventions allant dans le dans le sens de préserver aussi la liberté d'exercer librement la politique. Mhm. def ko aussi en son article 8 comme ni mu ko waxee. donc ñun dañu jàpp ne Ngagne Demba Touré la liberté ki non en fait ki nga xam ne mu nga nekk ci nguur gi am liberté di def politique parfois ñoom seen arène lañu yor noonu lañ ko ñëpp di schématiser parce que y a des coups réciproques. Mhm. kooku di ko def librement sans être inquiété bërki démboo Ndiaye gis nañ la am Thiès. benn politicien moo yor pistolem man ni ku nekk Far West di tirer à ce que je sache tey jii may wax ak yow. il est encore libre. il est encore libre et va tranquillement à ses occupations kuy dën day gañ Demba Touré parce que tout simplement il est dans l'opposition man je pense que tey ba pare aussi le timing aussi fait défaut dañu nekk tey ci benn période de décrispation de la en de du climat politique et sociale mm. le président de la République di ci teg ay jéego. Mm-hmm. xam nga lu ñuy libérer ñoo xam ne ay détenus lañ en masse ñu koy rafetlu. parce que kaso yu feesoon na tout ça ñu jël koo xam ne ca kër ga muy liggéey moom comme que y en fait une, une un élan de de de de libération et de décrispation. de pacification moom ñu gis ñu enfoncé que à souhait jël ko. voilà traité ko nu ñu ko traité. mais dossier Ngagne Demba Touré mais bi ça date pas d'aujourd'hui ça date d'il y a huit mois. non dafa amoon même mandat boo xamante ne. Eh, boo xam ne gàllankoor nañu yoon moo ko santaane donc mënuñu eh, eh, cee. effectivement donc li nga xam ne moom la yoon santaane est-ce que du moom rek la ñuy exécuter tamit ngeen ngeen bëgg a commencer yu ko mbir mi àggul fenn. fa la àgg. mais mais tey mais exécution mandat d'arrêt ne signifie pas aussi que da ko war a placer obligatoirement ce mandat. mais mais loolu juge bi mooy xool juge juge bi. mooy xool moom mooy xool mais en fait ni ñu ci gis je pense que sax comme que dañu nekk dans un climat de décrispation parce que soo juge en tant que même su nekkee décrispation tamit. li yoon wax mais du tee ñu. mais d'accord non non non pour pour ne pas insister sur ces détails c'est-à-dire que am na détails yu bari yoo xam ne ñun moo ñu sëngeemloo bi ñu gisee ni mu demee bi ñu gisee lii réel le mandat d'arrêt bi ñu gisee yenn propos yi nga xam ne jàpp nañ ne mm. bon c'est d'ordre c'est subjectif et c'est des jugements de valeur mm-hmm. ñun dañu jàpp ne kii kat mm-hmm. bu ñu amul taxawaay bi ci war peut-être que il n'aura pas un procès équitable bi nga xam ne kon da ngeen jàpp ne le juge Mamadou Seck a quelque chose contre Ngagne Demba Touré qui va même au-delà peut-être de ce qu'on lui reproche je ne je ne vais pas jusque-là parce que bu dul dara le président sec suñu bureau ñoo jàkkaarloo woon. le lendemain des incidents. man maa ñëw taxaw ci parking bi di dem boobu boobu j'étais encore la tête était encore chaude moom moo ma interpellé. moom Mamadou Seck. ci laa prendre conscience que ne ñun malgré tout malgré que li ñu am li ñu mën a am problème yépp mhm. en réalité ñun ñoo bokk même kër. lan la la nous partie de la même famille. am na ci lu ma wax loo xam ne mënu ma ko biral fépp. mais je lui ai fait comprendre la. bi ñu dañu moom en fait daf ma abordé sa nuyu man maa dugg ci loolu. dafa daf ma abordé nuyu ma man maa dugg ci loolu xamal ko ne que nag mer nañ mais nag li ñuy mer mer mer mer je viens de prendre conscience que. samay sentiment c'est mitigé parce que ñun man li ma gëm boobu en tout cas en ce qui képp ku may liggéeyal te fépp fu ma mës jaar xam nañ ko man xaw ma demi mesure xaw fausseté xaw ma sournoiserie képp ku may liggéeyal. soo meree mer nga. yàlla de moo ko def peut-être nattu la waaye nag aussi xaw ma fausseté kon da nga ko romb nuyu woo ko daal di dem sa non man en moom moo ñëw mm. de vers moi parce que dama doon gaare ci parking moom en fait gis naa nag gis seen ko mu ngeen merci lool nag non non dugguñu ci lool même bu ma ko waxoon sax du ma ko wax mm. ngeen baal ma d'accord voilà nekkuñu ci logique boobu dama bëgg rek biral ne en réalité malgré tout ça mm-hmm. c'est notre famille qui est actuellement en lambo te am na ñoo xam ne ñu ciy dox ay jéego ñun aussi li ñu war en tant que en tout cas ñi ñi jiite mbooloo. Mhm. mooy appeler au calme xam nga lu ma la wax. ba pare aussi lépp loo xam ne def nañ ko loo xam ne nit mën na ci gis kat gis ci boppam wala mu ñaaw wala peut-être au-delà le peuple sénégalais pour qui mhm. euh, au nom duquel euh, duquel la rendu ñu ñu ñu ñu jégalu je pense que ci dynamique boobu ñun la ñu nekk actuellement tànki jàmm yi donc c'est diggante les greffiers ak euh, l'UMS et même non pas l'UMS en tant que tel l'UMS c'est une entité hein. c'est une euh, entité Mamadou Seck les magistrats pris individuellement les avocats pris individuellement parce que aussi du ñun rek jour boobu ñun ñoo am kii ah même les avocats aussi c'était houleux génn nañ wax ñoom tamit exposé seen mer te ñooñu ñëpp ci famille bi lañ bokk ñooñu ñëpp ci famille bi lañ bokk donc comme que demee na noonu daal te ñun ñoo bokk même kër Euh, d'accord colère moom noonu borom la lii am am na ba pare. Hmm. li ci des moom mooy am une certaine grandeur. baalu ku tooñ am grandeur baalu. Hmm. je pense que du faiblesse mais signe de grandeur la. Hmm. mais sànq su ma su ma ñëwaatee encore ci ci yéen seen seen kuréel gi maanaam est-ce que tamit ñi leen di tuumal ne euh, kaw ngañ Demba Touré léegi dafa nekk sax benn prétexte boo xamante ne di ngeen koy gën a fësal. ngir ngeen bëgg jaaree fii nii am li ngeen bëgg parce que tamit gis nañ ne ak malgré que ne ci même ci biir greffier amoon na divergence parce que syndicat bi ak syndicat bi mais xeex bi yéen ko bokk parce que solidarité rek koor da ngeen ngeen fi def mais est ce leen jël problème ngañ démb tur bi ma laaxaale ci li grève bi nga xam ne moom ngeen daan def pour ngeen gën a mën a euh, buux ci mur bi euh, ñi nga xamante ne ñoo ñoo ñooy seen njiit pour yéen ak yi ngeen bëggoon ngeen am ko noonu ñun on n'a pas besoin de de prendre comme prétexte l'affaire Ngagne Demba Touré pour porter nos revendications. non dañ yéen ñëpp lañ ko jiiñ yéen yéen ñaari syndicats yëpp yi fa nekk yëpp. ñun lañ jéññil quoi. yéen ñaari yéen ñaari ñaari syndicats yi nekk euh, yi. affaire Ngagne dafa yokk xar mais merci vous me recevez vous en fait vous me dafa yokk xa euh, karaw ci xar bi. xar mi amoon na ay problème ba pare peut-être dafa yokk xar bi ci karaw. mais yéen di ngeen actuellement mais actuellement ngeen ne ça vous sert de prétexte gën a ngeen gën a mën a diisal seen dossier. absolument pas ça ne sert pas de prétexte pour quoi que ce soit mais au moins mais c' est c' la goutte d'eau qui a fait déborder le dafa nekkoon ñu am ay problème rek. nekkoon ngeen déjà ci mouvement du nag ba nga xam ne vraiment gis nañu. problème sur problème nga gis si coup bas saa yi laa nga gis aussi soofantal bi exécutif bi en fait de notre chancellerie peut-être soofal suñu yenn revendication yi peut-être aussi au niveau de la fonction publique te am na loo xam ne il suffit d'une petite volonté que ñu jàll ci leneen parce que ñun on aimerait avoir la quiétude ah yenn administration yi am c'est en fait c'est avec si c'est avec vraiment amertume que la ñuy ñëw constamment di porter des revendications bu ñu sañoon ñu dépassé ko suñu kër gi ñu nekk dafa nekk kër goo xam ne dafa war a nekk ci dal parce que mm. munoo aussi kër goo xam ne dañ fay porter ay problème mm. yéen aussi ngeen am problème apro dans des problèmes war ay problème loolu xel mënu ko nangu ah, quoi te loolu vraiment <laughs> <laughs> vraiment nekk na loo xam ne daal vraiment ñun on voulait on mm. voudrait vraiment dépasser ces situations là vraiment donc voilà def li nga xam ne moom la ñu moom la ñu population di xaar ci ñun tànk jàmm yi nga wax concerné na Ngagne Demba Touré mais moom mooy ndey bi ligi tànku jàmm yi tànku jàmm yi. pour ñu bàyyi ñun dañu jàpp ne ngañ Demba Touré au vu de la situation politique actuelle au vu du en fait de la dynamique d'apaisement mais dañu ni ñu defal ay moroomam lañ ko war a defal mën li gars yi naan euh, bu ndox tuuroo moom mbaax a des malheureusement placé nañ ko sous mandat de dépôt ba léegi ñun nous souffrons parce que ñun ñooñu ñëpp ñu fa nekk ku ne da am sa famille. ku amul soxna. Mhm. am nga jëkkër. Mhm. jël jëkkëru jàmbur. koo xam ne ca kër ga la bokk ma nga ca kaso ba fa nga sëngéem donc à ce sax ñun mm. aussi prévoir nañ dem gisi sa pour sa famille defal leen soutenir leen moralement financièrement ba pare dem seeti yi nga dem demee kon gisagu ba tey bon actuellement à benn moment il s'est posé en fait euh, une disponibilité de permis de visite mais on s'est on s'est euh, voilà accordé avec kon euh, suba yéen greffier yi ci ngeen di seeti nga dem moom loolu loolu la ñu fas yéene incha allah rabbi seeti aussi aussi sa famille defal ko wan ne ko ci métit bi ñu teg jëkkëram mhm. wéetu ci benn yoon hmm. alors tànk jàmm yooyu nga wax ñan ñoo koy dox yéen la wala ay politique la wala ay magistrat la ñan la ak ak fan ngeen di doxee yooyu tànk jàmm bon est-ce que ça vise jàmm yi man personnellement bokkuma ci xaw ma sax les derniers développements parce que aussi bon dafa am peut taxawaay boo xam ne taxaw naa ko bon d'autres peut-être sont plus habilités à le faire am na de bonne volonté de part et d'autre parce que aussi après tout dafa dañoo may mag ci biir donc dañu am say papa. umpul leen ne temps yële passé bi problème yi taree ba tar mais aussi di que ñun justice dañu am ay ay wa ay ay ay kilifa ay waajur sax ñoo xam ne boo leen tiimee si ñoo sa moroom waajur da nga bàyyi sa kër ñoo bokk ñoo donc bu te boo ñëwee sagesse boobu ngay gis ci ñoom. Hmm. on a vu premier président de la cour suprême. ok mu accueillir ñu wan ñu benn sagesse boo xam ne extraordinaire ma koy nuyu au passage. Hmm. on a vu le premier président moom aussi naka noonu. on a vu aussi également le médiateur de la République bi nga xam ne moom sa famille naturelle c' est la justice. parce que il fut le premier président de la cour d' appel. Mm. expliquer suñu problème wax leen li ñuy dund wax leen aussi suñu bébét. que ne ñun nous sommes de bonne foi. nous sommes animés tout simplement par la satisfaction des revendications des travailleurs et que nous aimerions que ñu inscrire dans la durabilité. donc en ce qui concerne la stabilité du, secteur public de la justice ñoom mm-hmm. aussi ñu wax ñu ni ñu aussi en ce qui leur concerne dinañ ci tànku jéego donc ñooñu ñëpp aussi véritablement am na ñu leen aussi di voilà gis aussi di dox pour que daal famille bi nga xam ne actuellement nii c'est un peu déchiré mm-hmm. ñu recoller les morceaux parce que on est condamné on est condamné à vivre ensemble yaakaar ngeen ginnaaw loolu aussi ngeen mën a am libération wu maître Ngagne Demba la ñuy souhaité loolu moom mooy suñu vœu le plus ardent espérons que daal vraiment Ngagne Demba Touré bon voilà et puis may ko jàmm quoi. il y trop de. voilà parce que y a trop d'acharnement sur sa personne quoi. ci benn réaction yaa ngi yaa ngi wax naan lii lii la persécution lay nduru.

persécution ça n'a rien man persécution bi ngay wax man jot naa ci sama wàll. parce que ngañ Demba ak man ñun lañu boole. waaw affecté parce que bëgguñu ku yëngu. yow moom dañu am naa fulla gu toll ni man mag bu toll ni man bu may politique <laughs> mais dama koy biral ba ñëpp xam ko du ma non amul ay demi mesure. mu doon politique damay bokk ma ci benn parti je le dis ouvertement donc bu ma ko doon def aussi dama koy def parce que la loi. may na ko. par contre chez les magistrats par exemple ñoom seen en fait seen seen loi organique bi bi bi règlement kii daf leen ko xañ ñoom mënuñu magistrat mënul politique ñun on a le droit Sauf de faire du syndicalisme on a le droit de faire de la politique mm. donc rien ne s'y oppose voilà ñun on défend des positions de principe mm-hmm. voilà langue politique bi dañ koy bàyyi ña nga nekk ci politique ñun à notre sein am na ñoo xam ne peut-être ñu ngi def politique bariwuñu nag quoi kenn ñaar laa ci xam kenn ki mu ngi ci mm. wàllu nguur gi kenn ki mu ngi ci opposition bi mais suñu biir kuréel yi ñu nekk du fa wax sa lu waxu politique parce que c'est leur liberté à eux mm. voilà donc dañoo am ñoom seen chant nañ leen bàyyi ñu kii bu deen Ngagne Demba Touré dafa intervenir aussi en réaction avec certains propos man gëm naa ni peut-être foofu bokk na ci li ko ci mere seen ñoom ñoo nekk seen langue politique nañ leen ko bàyyil mais en ce qui concerne le greffier je pense que amul benn faute professionnelle ne reproché nañ ko ko mm. il a subi une affectation arbitraire comme ñun ni ñu te ah, ba léegi gis ñu benn loo xam ne def na ko loo xam ne jàpp nañu c'est une faute professionnelle mm. donc à ce titre je pense que amul lenn lu ñu koy reprocher li ñaan daal mooy que ñu libéré ko dans les mm-hmm. plus brefs yaa ngi wax déchirure